joxaane joxaane joxoon micro yi micro yi waaw am ngeen micro yi pendant la campagne pendant la campagne électorale nous avons sillonné le pays nous avons senti un peuple inquiet un peuple inquiet un peuple qui demande un mieux-être et c'est ce que nous voulons apporter au Sénégal. Nous voulons donner un mieux-être. Nous voulons aussi euh, aider nos femmes, nos frères, nos sœurs à avoir une meilleure vie. Et nous appelons pour la paix, nous appelons pour que les élections se déroulent dans la paix et que ce soit

wax ni durant campagne électorale bi dem nañ fépp ci Sénégal wax gis askan wi waxtaan ak ñoom te li ñu gis mooy askan boo xam ne dañu sonn dañu bëgg fu leen génne ci situation yi ñu nekk dañu bëgg dund gu gën bu ñu nekk ñu leen di wax ne ñun seen doom Abdoulaye la coalition And Besal Sénégal bi ñu loolu lañ xam liggéey lañ xam liggéey lañu def te dañuy ñaan yàlla buñ yàlla yàlla defalee ndam ci lii jëm ah, lii ñuy def tey ñu ñëw def Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne suñu expérience homme d'affaires lañ ci indi expérience nit koo xam ne dafa tàmm di créer emploi nit koo xam ne dafa tàmm di dimbale loolu lañuy ñaan yàlla defal ñu ko ba nga xamante ne à partir de ce soir am beneen assemblée am beneen xar kanam boo xam ne moom la ñuy taxawal ci senegal ñu mën a booloo nag ci jàmm a salaam tàppe xol yi ah, jox cër kilifa diine yi jiital leen ci lépp lu ñuy def ba ñu gunge ñu ñu mën a tabax Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne dootul amati bodd xante dootul amati benn xiiroo dootul amati benn ŋaayoo ñëpp benn objectif bi la ñu am ñëpp benn mëbëb bi la am mooy ñu tabax senegal boo xam ne koom dafiy am naataange def yi am te loolu yàlla mën nañu mën na ko yàlla nañu ko yàlla defalal ñu ñaan sunu kilifa yi aussi ñu ñaanal ñu si yàlla defal ñu loolu loolu ngeen jëf. loolu mooy waaw ah, sur le plan organisationnel ñu ngi sant yàlla parce que boobu ba léegi gisaguñu benn ay kii yu tomb complainte yu bëri ñu ne am na ay jafe-jafe yu bëri ba aci sama xam kii bu bokk bokk xibaar yi ma jotagum. xëy nañu am ni dégg la ngeen mais man li ma jot a gu dégguma ay jàmbat yu bëri ak ay ñaxtu yu bëri ah ñuy ñaan yàlla aussi ñu continuer noonu nga xam ne Sénégal moom ah, ñun ñëpp ñëpp bokk te lépp lu ñuy ñu def ci jàmm ak dal parce que man homme amul jàmm amul dal donc moo tax loolu laay woote pour woote jàmm ñu woote dal ñun fi nekk nii nga xam ne yaakaaruñ dara lu suñu doole ñu xëy dem liggéey loolu la ñu ñaan te loolu la ñuy woote aussi. jërëjëf merci.